kon faaw nga dégg ci biir sawara koo da faaw nga gis biir sawara koo xam ni. la mu wax sëriñ Abdul moo ko fa waaye ku waaye nag ku jégal ay noonam nag. ku doon ci moom dara. ku doon ci moom dara. doo topp sab dafa jégale rek. dafa jégale rek. waaye lu lu ne ci àdduna. ci aw yiw ci aw yiw. teg nañ eh? teg nañ ko ci daram bii. waaye sawaan boo dégg nag. teg nañ ko ci daram bii. nag moom bu doon bu yor dara ci ay ñaawteef. waaw moom bu doon yor dara ci ay ñaawteef. kon set na wecc. kon set na wecc moom. ndax waxee nit ñi dem. ndax wax yi nit ñi la dara bu la dara taxoon. set na set na. waaye saa borom baax na la. waaye suñu borom baaxee na la nag. fa nga jógee. fa nga jógee. kenn du fa jógee. kenn du fa jógee. daray safaan di tax ci yow. daray safaan di tax ci yow. loolu loolu la Mbacke ba loolu lañ la baaxee. Mbacke loolu de lañ la baaxee. sëñ Fallou mii toog. toog. ak rakam yu baax yii. baax yii. nga xam ne ñoom rek la nekkal ci sa liggéeyu wajur wi. nga ñoom rek la nekkal ci liggéeyu seen wajur wu tedd wii. di sa maam ja. di sa maam ja. ndax liggéeyu liggéey bii kat liggéeyu Sëriñ Tuubaa kii fi nekk. kii fi nekk. lim doon ci doon. lim doon nga ci doon. ñu tàmbalee ko ci jëwriñu Sëriñ Fallu Mbàkke. ñu tàmbalee ko ci jëwriñu Sëriñ Fallu Mbàkke ja nag. Sëriñ Abo Mbàkke moom Sëriñ fal waxtu wu ne. noo ngi dégg sa kaddu. noo sa kaddu. xam nga nangu nangu nangu gi nga nangu. xam nga nangu gi nga nangu mu loolu ko defoon ci yëfër loolu ku ko defoon ci yëfër yi itam. way weddi ya way weddi ya. faw nga raw nag nga raw ca. sa kilifa yi. waaye nangu gi yow mii nangu gi nga nangu sa kilifa yii. koy gis. noo ngi koy nga di ko teewal say kilifa. nga di teew say kilifa. koo ci teewal ku ne rek. koo ci teewal ku ne rek. ku ci teg bëtam ku ca boobee jotaay. ca boobee jotaay. yeesaat na peq. bu fekkee kookee bu fekkee ci baax ñu ci la bokk ci la bokk loolu sëriñ Abdou Abdul Karim. du luñ la beral. du luñ la beral. du luñ la sosal. du luñ yaa ko wane ba noppi yaa ba yaa ko def ba noppi nag wane ko. ndax na ko waxee. ndax na ko waxee. jotaay buñ la xool. jotaay buñ la xool. nga toog sa kilifa. nga toog ak sa kilifa. melokaan la nga wax bañ dégg ko. la nga wax bañ dégg ko. buñ ne jàkk yow. buñ ne jàkk ci yow. noona noona ngay mel. wax rek nag yomb na. wax rek nag yomb na nag. waaye jëfe la nga wax nag. waaye la nga wax nag. fi la ñu baax ñëpp rawante. kon jëwriñ ji toogul toog di sëriñ Fallilu. mi ngi lay siyaare. mi ngi lay nuyu. mu ngi lay sant. mi ngi lay gërëm. ci turu kilifaam yëpp. fi ma jaar rek. fi ma jaar rek. ku ma joxoon kàddu gi wax loola. fi ma waxee ngay waxee. li ma li ma wax it ngay wax dong. liggéey bii nu nekk nag ñun waa kër Cheikh Ibrahima Fall. ak ak mboolem ya sa lépp ngi ci. sa lépp ngi ci. jëfe nga ci nekk. waxee nga ci nekk nu nekk. te loolu nag. te loolu nag. ñëpp ko seere. ñëpp ko seere nag. fii nga jaar. fii nga jaar. day bunt bi ci yow. day buntu yaa ko def nag muy sa buntu nag. boo jaaree Serigne Fallou. boo jaaree Serigne Fallou. dajal dajal nga. mooy jëwriñu jëwriñu buntu kër yëpp. mooy jëwriñu buntu kër yëpp. kër gu Serigne Fallou dem kër gu Serigne Fallou dem rek. mooy taawu kër. mooy kër ga. taawu baay nag. taawu baay nag. Serigne Fallou. luay def ci kër bayam lu def ci kër bayam mom la ko defal te moy taw kër yeb te moy taw kër yeb kon lu def ci yoon wi te kon nak lu def ci yoon wi kër sey rafal gi jaare ko serigne fallilu jaare ko serigne fallilu dajal nga dajal nga kan nangu kan nangu ak gantu dajal nga kat ñoo ngi ñaan suñu borom nga ngi ñaan suñu borom ñu ngi ne suñu yaakaar jëpp ci arafa la ne lii sëg bëgg sëriñ abdul karim yàlla na ko am ci barkeb Serigne Fallilou. mooy ñaan loolu ñaan gu rafet la. nee na ñaan googu ñu ñaan kat ñaan gu rafet njortu la. xanaa ñi amul xam sax. xanaa ñi amul xam sax. waaye ñoo ngi jort ne. waaye ñoo ngi jort ne. li nga bëgg xam li nga bëgg am nga ko. ci àdduna mii. mii. te fa ca des moom. des moom. des la ko fagul. des la ko kon jërëjëf Mbacke. kon nag jërëjëf ñëw gi nga ñëw. ñëw gii nga yëpp bëgg. murid yëpp bëgg. murid yëpp ci bëgg. murid yëpp a ci bëgg. rawatina ñun ñii nga xam ne. suñu yaakaar yëpp mooy Serigne Fall. suñu sa tur wii moo neex ci ñun. ñun neex ci ñun. waaw ñu la turu Serigne Fall neexee. ñu la turu Serigne Fall neexee. ba lu nga làkk nga. nga. <laughs> nu ne waaye wax nga ko. bëgg bëgg ñu xëy si ku sepp sarafaale gi. bëgg ñu xam ne ku sepp sarafaale gi nii. waaye ñun waaye ñun itam. dal ci yow waaye ñun nii kat looloo dal ci yow de. mais noonu lu ne ñun nit ñu ngi koy def di ko wax. ndax bëgg. nga xam ne say soppe lañu. nga xam ne sa waa kër yi sax. sa waa yi sax. léeg-léeg day am koo xam bu la nuyoo. lan ma cay tegal lan ma cay tegal. sama digg ak yow. sama digg ak yow. boo demee du ko defee ma ne ko. am nga sëriñ ci. am nga sëriñ ci. boo demee nee ko. boo demee ne ko. Moustapha Falil Fall. nuyu na la nuyu na la. ci turu kilifaam nag. soo waxee Seydou Sow lool rek. boo boo waxee Seydou Karim lool rek. am nga sëriñ ci yow. am ci yow. te dëgg la nag. kat. ma daa am loo xam ne déggu ko woon yéen. na daa loo xam ne déggu leen ko woon damaa ñëw nuyu ko fa mu toog ne ko. damaa ca dara ga laa jógee. ca dara ga laa jógee. bis bu ne ma rombal la. ma rombal la nag. waaye duma taxaw. waaye du taxaw. mu ne ma yow. mu ne ma yow. mu ne waaw. mu ne waaw. ne ko dara ga laa jógee kay. mu ne ko dara mu ne kon ah man de kon bu suwaa may it ma dem daral. ginnaaw weesoo ko dem daral. ginnaaw yow ko sëñ bu dem daral. man man mii weesu ko damay weesoo dem daral man. ginnaaw damay damay liggéey sëñ Tuubaa rek. damay liggéey sëñ Tuubaa rek. waaye na nga koo xew na waaye na nga la ko na la ko defee. kon daal ñun Mbàkke ñu ngi sant tey gërëm. waaye ñun murid yi. ñooy sant toujours Sëriñ Fallilu. ci turu Sëriñ Fallilu. di ñaan nga ñaanalal nu ko. ñaan nga ko. ñaan xam ne. ñaan goo xam ne. ku doon ci moom dara rek. ku doon ci ànd nga ci. ànd nga na fi yàgg. na fi yàgg. na wér. na wér. man bu ko dara dara dogale. ku ko xaar moom mii yàlla na xaddi. lii ay bëggam ay bëggam moom mii yàlla na am rek. ñu ngi ñaan nga ñaanal ñu ci daraje Serigne Fallou Mbacke sa way jur na loolu am rek. jërëjëf sant Mbacke waaw waaw mbokk sëriñ bi nee mi ngi leen nuyu bu baax nee tey jii daa siyaare si woon mbokkam yu baax yi waaye siyaar bi nag dama fee ñëwoon andi ab yóbbante boo xam ne dama bëgg man ñu yóbbaaleel ma ko ndax man kat ba ma xamee ne ñoom seen ab yóbbante day yegg ma bëgg man nag dugal ci sama yóbbante ndax ndax bis bu ma taxawee. ñuy yebbi seen yóbbante. ñuy yebbi seen yóbbante. ñu naa ah, sëñ Karim kat. lii yaa nu ko yóbbante woon. am. bu boobaa. bu fekkoon maam dara it. da koy gën a sakkanal rek. moo tax ma ñëwoon tey jii ndax liggéey bu mel nii awma sañ-sañ toog rek di ko dégg te ak siw ci nee na loolu man sama fit ñëwu ko sax nag moo tax ma ñëw fii tey nee na sëriñ bi nee mi ngi leen di jox yóbbante bi nag ndax ndax Serigne Fallou yàlla yeewoon maam ci Serigne Touba. ndax ni yàlla yeewoon maam Cheikh Ibrahima Fall ci Serigne Touba. noonu la ci yeewoon Serigne Fallou. ñoom nag. ñoom ñii la ñoom ñii laa wax. jàpp nañ ne kat. jàpp nañ nag ne. jàpp nañ nag ne. maa ngi jégalu baat mi ngi jégalu baat bi de. jàpp nañ ne ñoom kat jàpp nañ ñoo gën a muus ñëpp. waaye. waaye yàlla yeegi mu yeewoon maam Cheikh Ibrahima Fall ci Serigne Touba. noonu nag la ci yeewoon Serigne Fallu nag. ndax Serigne Fallu. dafa lam wax Serigne Touba. dane ko njuréel gi dox suñ diggante jaay naa la ko. Hmm. jënde ko ak taalibe. loolu ku yàlla yee rek. ñoo ko man nee loolee nag man dompal na ma ci aslëf nee na sëriñ Fall na loolu dompal na ma ci aslëf yéen nag bu ngeen gisee ngeen mel nii ngeen mel yéega yàlla yeewoon Cheikh Ibrahima Fall ci sëriñ Touba maam Cheikh yéen da leen a jox lépp moo tax ngeen mel nii ngeen mel. ma ne ko ni ngeen ko mane loolu. jox gi leen maam seex jox lépp tax. tax. xam ngeen nit nii ngeen di doxe ku yor lépp moo ko mën. kon nag. ñëw naa fi. ngir barkeelu si. ak ngir ngeen yóbbaaleel ma sama yóbbal samay bagage ku say bagage yegg kat ku ci boole ay bagaasam am dana yegg jërëjëf sëriñ bi nee na day wax nag ni koo dégg ñu naan murit saadix la nga dem gisoo muy dox doxinu maam Cheikh. gisoo muy dox doxinu maam murit saadix ga dañ ko koo jiiñ rek. waaye amul ko. loolu loolu wax waa rajo yi dégg nañ ko waa téléphone loolu waa rajo yi dégg nañ ko waa téléphone yi dégg nañ ko ndax yow sëñ Moustapha wax loolu. sëriñ Fallou sëriñ bi li doonoon ay tànkam tey. mooy loolu rek siyaare si leen ci liggéey bi toog naa ba ñemeetuma toog ma ne ah tey jii nag moom naa daal di jóg moom jërëjëf waaw nee na nee waxtu ne jëfa ngi fi jëfi si Abdou Karim mi ngi fi xanaa jëmm ji rek la bëgg a indi sëñ bi nag taalibe bég ci jotaay bi waaw waaw waaw dégg leen rek waaw sëriñ Fallou nee na ma wax ni ma wax sëriñ bi ne ko moom sëriñ Abdou Karim Mbacké mii hmm. li ko tax xëyee tey jii ndindi. ci kër sëñ Fallu Mbàkke googee. ngir ñëw tey jii kër maam Cheikh Ibrahima li ko fi taxoon a ñëw. am na ko. loolu moom am na ko. sëriñ bi sëriñ falu nee na waajuram bu baax wa. di sangam ba. ñu bëri dañuy wax ni. ñu ñaar ñaar la damaa dégg koo xam da koo ñetteel. dañ ne dañ ne sëñ Fall nee na. Cheikh Fall nee na. ñett day ñoo ko doy. ci lii. bu dee ab sëriñ bu sëriñ sëriñ Tuubaa rek ko ci doy. bu dee ak muñ. suuf rek ko ci doy. bu dee ak taali bi bàyyam Seera rek ko ci doy sëriñ Fallu Mbàkke ma wax loolu mm. bu dee sëriñ Fallu dane bu dee ab sëriñ sëriñ Tuubaa ma ci doy bu dee ak muñ suuf mii rek moom ma ci doy muñam gi bu dee ak taalibe nag bàyyam Seex Rafaal la ko ci doy nee na li wax li sëñ Fallou wax nee na ñëpp la ko nangul ndax ñëpp a dégg ni ndax ñëpp a dégg ni ñaari ñaari ñaari ñëpp ko dégg mu muñu suuf ak taalib ak Cheikh Rafal. ak taalib ak Cheikh Rafal. waaye sëriñ bi mu fi nag. waaye sëriñ bi mu nag. ñëpp nangu ne sëñ Tuubaa ñëpp nañ ne sëñ Fallou sëñ Tuubaa ko doy. donc donc <laughs> bu ko waxee loolu la bu waxoon. bu ko la bu. sëriñ bi sëriñ Fall nee na mi ngi lay seereel nii. fu mën a nekk day. ñu xam nga xam ne yow rekk lañ fa nekkal. ndax ñun fa suñ nekk sëñ Tuubaa lañ fa nekkal. te yaa fi ndax kii fi nekkal sëriñ Tuubaa. Serigne Moussa wax ci moom. li wax ci moom. yéen bokk Serigne Touba. yéen a bokk Serigne Touba. doon rek nga ci doon. day loo xam day loo xam ne lislaam a ko santaane. muy cër bu ñuy joxee waaye bu mu ci am rek. waaye bu mu ci am rek. am nga ko ci. jërëjëf Fall. nee na Serigne bi nee na mi ngi sant gërëm bu baax a baax a baax. nee na murid yëpp. maase nañ di ñaan saa borom mi nga xam ne moo am lépp man lépp sañ lépp mu yàggal la fi te wéral la waaw na ñëpp maase tàllal sëriñ bi nee na yàlla yàlla dolli faj aajo yi nee na li sëriñ Moussa Mbar wax da nga yàgg fi te wér yàlla na ko yàlla def parce que ñu mënul sama dëkk dal ko ñu dal ko parce que ñu ko ko dëgg ba ñu ñu sama dëkk ñu bay ba ñu parce que ñu ko dal ko ñu dal parce que xal ñu ko ci sama dëkk ñu dal ñu sama dal ci ñu ko dal ci ñu la parce que ku ma ko liggéey yàlla liggéey ko ma ko amiin ngir top sen chaîne Jazboul Mourid demal Google Tapez Jazboul Mourid bésul ben émission mu yóbbu YouTube ci page bi nga abonné té activer cloche bi ngir am notification saa ñu dugal